ngi triste bu ñee di triste ñee ñu ngi euh, ñu ngi kontaan euh, anniversaire u euh, Mariama Diop mu ngi nekk Kolda alors joyeux anniversaire aujourd'hui c'est l'anniversaire donc de sa maman madame Sarr moo ñu ko yónnee on souhaite donc un bon anniversaire à yaayam sa maman de cœur madame Sarr nee na mu ngi ñaanal Mariama Diop dëkk Kolda di yaayam di yaayu xolam mu ngi koy souhaiter un bon anniversaire di ko bëggee bu baax ma nga nekk Kolda. sunu euh, benn euh, wayjur sunu sang sunu euh, sunu papa papa ci Sidi Jamil bu télévision Futur Média di sunu papa Serigne Sidi Ahmed si Jamil tey la anniversaire am donc moom njabootam yëpp ak ay taalibeem ñoo yónnee message pour di ko ñaanal gudd fan Mass Ndiaye taalibe Cheikh ak ki xamante ni moo di Jamil bu télévision Futur Média nee na ñu ngi ñaanal bu baax Serigne siidi Ahmed si Jamil di eh, doomu Seydi Jamil eh, di ko ñaanal gudd fan ak wér mu yàgg fi lool moom it te ànd ak eh, donc tey ci anniversaire am bi njabootam yëpp ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér joyeux anniversaire à mon frère lay caw Thiaw Laye via mon frère VIP Laye Thiaw longue vie à toi de la part de Bijou ah, léegi mën nga wax na ah, <laughs> c'est incroyable ay waay waxal adorable comme ni ma ko ko waxee nit xamante ne euh, toujours avec le sourire toujours gentil toujours prêt à rendre service aux gens adorable baax daal la ko ñëpp xamee donc guddal fan loo bëgg sa xol yow yaa ko es toi. donc joyeux anniversaire à VIP Laye joyeux anniversaire à Serigne Saliou Fall doomu Labba Fall ak euh, Dieynaba Gueye euh, depuis Thiès c'est de la part de tonton Dadi Diop. joyeux anniversaire à Mawali euh, Diagne fille de El Hadj euh, Ngagne Diagne euh, chéri El Hadj Pape Thiam qui fête son birthday le 7 octobre 2019 donc moom démb la woon ah. ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak weer ak ñi judd ñëpp tey tey seen anniversaire. tey saan yàlla wax la. <laughs> bu ko fàtte loolu moo tax. benn problème non dañ ko fàtte rek moo tax yàlla baax na xam naa dina jàll fii ak suba incha allah y' a pas voilà donc ñu jeexal 11 jot na euh, bàyyi leen ak euh, Evatra euh, ak Ndoye ci li nga xamante ni moo di wareef Mame Goor kontaan nañu merci d' être passé nous voir xam naa ni après màggal gi dinañu jàkkaarloo ci live boo xamante ni présentation album bi lay doon et puis ñu waxtaanee tournée yi ak projet yeeg anniversaire bi nga xamante ni yaa ngi koy wàcc Youssou Ndour nga koy tuddee comme chaque année ban message. ngay euh, tàggatoowee tey surtout pour sénégalais yi euh, ñi la comprendre ak ñi la comprendreul <laughs> parce que am na ñu comprendre Mame Goor quand am na itam ñu ko comprendreul waaw d'accord donc hmm. maa ngi maa ngi képp koo xam ne daal peut-être samay wax da nga koy dégg peut-être mu lay déranger. Hmm. wala nga ci am kii ñun liñ ci jublu mooy wax lu baax hmm. amuñu kenn benn xarma yàlla mais profité nag ci occasion bi di remercier képp koo xam ni jàpp nga ci produit bi. Mm. pour mu gën a muy waa studio studio Mara Star. Mm. xam nga euh, ñi nga xam ni yëpp musiciens yi si participer joué maa ngi leen di remercier di sant nag sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax. ñu mm. ko remercier parce que bi may génne album bi defar maquette bi ba pare dama dem seeti ji ko. jox ko mu ñaan bi ma demee seeti ko mënuma nañ ko teg. ma teg ko. mu déglu ko ba mu jeex. mënu mhm. ma neex na. Mhm. bokk na ci way yi ma gën a neex ci yiñ ma way. macha allah ba pare boole ma nag ak waa euh, ay taalibeem. Mhm. yu nekk fii jëwrinam yu nekk fii boo xoolee clip bi ngay wax dafa rafet. amul benn clip bi man defuma ci dara lépp ah waa Makaarimal Axlaa nangu dégal ñoo ko def. macha allah sëñ bi way bi daf ko neex. ba mu wax ko nga euh, jëwriñ fàllu mm-hmm. benn jëwriñam mm-hmm. tey ji moo daje gis na yére yi ma sol ci clip bi sax ñoom ñoo ma ko jox ñoo ko defar lépp ñoo ma ko jox may profité nag ci occasion bi di sant sëriñ bi bu baax di sant taalibe yi mm-hmm. di sant sami sëriñ xaadim daw jëwriñam di remercier ñëpp eh, et tamit di ñaanal suma yaay yaay joor mu yàgg fi amiin parce que woy bi moom laa ko woy waayaale ci première dame. mu nekk une femme boo xam ne exemple la pour le Sénégal. mosuñu mm-hmm. am première dame bu mel ni Marème Faye. Mm-hmm. am na yërmande la rek ñi koy saaga sax ñi koy saaga sax ñi koy saaga sax di ko xas mu ngi leen di dimbali. donc kooku c'est une femme exemplaire. Mm-hmm. moo tax ma woy ko ci album bi. macha allah donc maa ngi nuyu ñëpp daal di remercier ñëpp. di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm. allahumma di ñaanal nag suma grand. Uh-huh. Youssou xam nga. Uh-huh. jàmmam yokk yéen ñaar je suis le maire. oui <laughs> bu Sénégal on n'oubliera jamais euh, yi nga yàgg wax dafa yàgg def dégâts moom Mame Goor Diazaka <laughs> mais c'est ce qui fait son charme euh, doon na Baye faal dëggu na ba noppi itam day wax li mu xalaat rek te man loolu laa préféré euh, moo gën tricherie yi en tout cas ñun ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay remercier bu baax. c'est normal xam nga tey jii. Uh-huh. man dama koy wax chaque jour. Mm-hmm. Pape yow nit ku baax nga. man duma ne kenn baax nga te baaxuloo. dëgg la. parce que namuma ay invitation télé wala dara. dëgg la mais Pape Cheikh. Hmm. nit ku baax la. ñu ngay kontaan loo ci réew mi sax yow xamoon nu ñu toll. c'est normal man dama lay déglu chaque jour. mais lu baax rek ngay wax. te dama la xam depuis nga nekk. RTS. yàgg na nekk fa di nekk liital. taaw noir et blanc may profité sa soxna sa soxna kii <laughs> euh. moom tamit suma rakk la. Hmm. suma xarit la. jërëjëf man ak moom daf ma sopp euh. bëgguma hmm. xam nga moo tax ci occasion. nii bi ngeen amee tout tànk ñëwuma parce que yëguma ko après ci presse bi laa ko yëgee mais dëgg dëgg neex yàlla maa ngi lay ñaanal tamit yàlla gën leen jubale et puis seen njaboot am barke waaw yow nit ku baax nga na la Sénégal yëpp ñaanal ñoo bokk sëñ Touba jeex na kontaan nañu donc rendez-vous à Touba je rappelle que euh, non man Fatima daal man damaa jeng voilà <laughs> dama jéng maa ngi ci Fatima Fatima moom tamit jigéen ju baax la. Euh, jigéenu jàmbaar la euh, jigéenu euh, muñkat maam góor ay jabaram yëpp a baax waaye nag ku nekk am na sa préféré voilà Fatima sama xarit la man Fatima sama xarit la mais Fatima man man damaa jéng ci Fatima man. sama famille nag dañu am xam nga xam nga groupe mooy groupe whatsapp yooyu. panel waaw nekk da koy am donc nag maa ngi nuyu waa Salak ca Yacine. kontaan naa ci yéen. bu eh. may def anniversaire dañuy dajaloo ñoom ñëpp def tout blanc. def kaar soxna rek ñëw taxaw. waa Salak am na ci groupe boo xamante damay wax de famille bi damay expliquer de. <laughs> famille bi d'accord donc di nga tàggoo. très rapidement te doo ci yokk dara. voilà sinon damay wax léegi ci groupe yi léegi kon bu may bu may gërëm nii bu ci dugal dara bu ci sànni sa grain de sel sinon dinaa wax ak Abisatu waaw d'accord d'accord voilà donc maam góor ñu ngi koy gërëm bu baax euh, yàlla na jàmmam yàgg on va revenir demain sànq maa ngi bëgg a wax faf bijou dagg ma comme moom dagg nit ñi la fi nekkee waaye sajotuma dagg ndax li ma ko xamal léegi bu may dagg ma koy wax en direct en pleine émission devant tous les oreilles euh, bu ko defee coow topp ko euh, di wax ni télévision Futur Média déjà ma nga Touba ci waane rek ak bëgg lu rëy Euh, ñun dañoo dem Touba balaa kenn di dem fan yii yëpp ñu ngi Touba nag j'avertis les autres télés si vous avez envie de euh, euh, faire des trucs exceptionnels allez-y à Touba parce que TFM dem nañu xale yaa nga Touba. <laughs> donc équipe yaa ngi foofu euh, gis ngeen diggu guddi jot ñu ngi leen di proposer ay édition spéciale euh, màggalu ko ren gi nag dafa nar a gën a neex ndax dafa tombeek yu am solo yu baax yoo xamante ni euh, sunu borom baaxee na ko Sénégal ci barkeb Seexul Xadim muntaxaa ci reeju neex ji xaa ci xéewal yu bëri yi xaa ci borom alxuraan xaa ci jekk rek naan yàlla nee na xaa daal mooy Serigne Touba loolu defe naa firnde bi bërki démb rek feeñ na donc ren màggal gi màggaluk Serigne Bamba pire la ngi koy wàcc ci ay plateau yu exceptionnel yu ngeen mën a seetaan euh, ci télévision Futur Média foofu nag ca Touba euh, ñu ngi nuyu euh, RFM Touba ñoom DJ aada waaye di ndokkeel bu baax madame Xuma mhm. maa ngi xaar ba nga wax boo ci wax may wax ci panel bi ak groupe bi donc madame Xuma Total Touba boutique Touba Total di boutique supermarché bu baax bu nekk foofu donc madame Xuma ak personnelu supermarché boobu yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bërki démb rek ñoom di bëggee tamit euh, yaayu Serigne Fallou taalibe Serigne fàllu nga xam ne bu màggal gi teroo rek euh, ay paas yooyu man du ma namm kenn moom rek laay namm ndax moo koy matal mami Boy euh, mami moom itam ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel mami on t'embrasse neex a fekk Pologne taalibe Serigne Fallou mami ñu ngi koy ziar di nuyu itam ay sëtu Gaël Gaël mi nga xam ne ni moo njëkk jox sëriñ fàllu junni ami Galaslo ñu ngi koy bëggee bu baax itam sëtu Gaël la euh, Tuutaan Diak euh, Samba Suuna sëtu Gaël la euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ci màggal gi gërëm Méri Bey Diouf rendez-vous bi ci Hightech 221 n'est-ce pas Ndioufalaay. waaw merci Pape Cheikh balaa joyeux anniversaire à kii di Daba Mbaye euh, on l'avait reçu ici mooy doomu Sankara Mbaye bi mm-hmm. on l'avait reçu ici sur le plateau euh, donc joyeux anniversaire à toi suñu doom le ñun ñëpp en bijou donc euh, comme dañ laa tere wax <laughs> donc di remercier nit ñi on vous donne rendez-vous euh, mardi prochain encore euh, pour euh, la rubrique tech et en attendant mën ngeen ñu fekk tous les dimanches à partir de 19h dans High Tech 221 inchaallah jaajëf Coro Mbar ak yow jeudi matin ci euh, patrimoine incha allah voilà jeudi incha <laughs> waa ji nee na mu ngi lay nuyu moog jabar ji <laughs> dañ doon feetu démb. <laughs> jeudi allah. waa jaa ngi lay de. waa ji nee def na un an de mariage jabar ji démb lañ ko feete te ñu ngi doog a yeewu ni doog a taal télé bi. waa ji nee na kontaan lool man nag li ma koy ñaan rek mooy lu ci am rek bu ma bu ma ci fàtte. waaw waaw bu ma fàtte ci dara. jërëjëf waa ji nuyu nañu ko góor day tudd Cheikh jigéen day tudd Cheikh. <laughs> waaw waaw. <laughs> xam nga Abba mu ngi ventu aux enchères doomam ji di doog a judd. <laughs> waaye kii it ñu ngi koy gërëm bu baax. un an de mariage démb la woon ñu ngi doog a yeew di doog a taal télé bi. loo ca am rek tuddee ñu ko nee na mu ngi lay nuyu moom waa ji. waaw nuyu naa ko waa ji nuyu itamit ndaw si nuyu nañ leen bu baax. di ñaan ndaw si de daa commencé am fit. ndaw si ne ma ko xaaral. ñaan yàlla boole leen ba ngeen di féete seen ay cent ans incha allah euh, di leen jox rendez-vous jeudi incha allah mais en attendant souhaite un joyeux anniversaire à mes deux deux petites sœurs Ndeye Abi Ndiaye Adja Fatou donc elles sont toutes nées euh, ñoom ci bésu tay bi mhm. di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm de la mhm. part de toute la famille à jeudi incha allah incha allah euh, matin bi juste mën nga wax mais quelques minutes euh, balaa may dugg ci panel bi ubbi nga gémmiñ mu ko caabi woon damay wax de déedéet bul wax yow tamit nag ah, ah noppi naa depuis loolu merci Adja pour la <laughs> téléphone bi 77 349 27 73 waajeeg ndaw si man tamit maa ngi ran waaw euh, góor day tudd xadi jigéen day tudd xadi ay yow daal euh, léegi dafa am war taxawal ba suba ok d' accord ak ma chérie Zahra voilà gërëm tamit Ndella mi la coiffé ah, ñu ngi koy gërëm waaw ak ma chérie Zahra et tout le monde waaw merci ak Kia ak Kia nga xamante ne ñoom ñooy jàpp ci sañse ci conseil yi ñu ngi leen di gërëm bu baax voilà merci ak sama tiim waa ak ma chérie Zahra Sophie merci léegi mën nga ndil maam góor ginaar gi waaw ba Cheikh euh, maa ngi ko koy andil léegi nii mu jaal ci dégustation bi à demain incha di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek ba demee ci beneen recette ba Cheikh yow ku lay jox paasu màggal xanaa Ina ak Modou Ndiaye Rahma. waaw kay Ina ak Modou Ndiaye Rahma man de rang naa ca mami booy man. ak maman Ana Ndiaye lu rang ci ku ko neex ma. ak maman Ana wakaam. Ana Ndiaye da lay jox. waaw yow da ngay jël bu Ana Ndiaye. waaw jël bu <laughs> <laughs> fili. fii ak suba ma doole ci yeneen. Eh, <laughs> tu exagères te ñëw wekk buum ngi Eliman laam rek. ba tey baax na Eliman gaaw na de. maa ngi gis ak Eliman daa gaaw eh, Eli Eli. ak Tahirou Sarr. yee kenn ko waa jàngoo ko. Mm. ça la rapidité. dafa am ñoo leen tuddee. yow waxa Elimane Lam ambulance la. Elimane Lam Tahirou ambulance la. très bien Sowetaas. Cheikh Amar mm. ambulance. waaw Cheikh Ahmed ba Sowetaas. waaw wax nga ambulance wax nga kii bi bi ñuy pousse tuuti. wax nga kii ah, bi ñuy ah, branché nit ñi réanimation ah, ne ko koy réanimation Amadou Ba moom mooy réanimation bon am na ay piqûre ay comprimé ay ay bugandoo ay comprimé. ay compresse mooy garab yu ah, am na ay mercurochrome waaw kenn la ne la buuba kenn la mais Mame Boye Diao itam ambulance la de. waaw ah, ah, Mame Boye Diao il bon. Mame Boye comme ne il est bon il est bon. ah non non man nag dama lay wax de benn benn affaire non man duma ni kenn bon nga élément là il est bon. ah il est très bon ah, moom. Cheikh Ba il est bon. Cheikh Ba Kodou Fall Amadou Ba est bon. Cheikh Ba il est bon. donc Cheikh Ba Kodou euh, Fall moom réanimation la Amadou Ba réanimation. élément là réanimation la. Bouba Ndour kel. bu yëg bi sax. du ma ko nangu bàyyi sam papa du kel. bu yëg sam papa mooy perfusion. perfal gaz cinq minutes nga jóg. ban moo gën a fort réanimation ci Youssou Ndour laa koy jox. <laughs> Youssou Ndour moom day dekkal ku dee. <laughs> di sulli néew. <laughs> sulli wër de meew pop pop pop pop inexplicable Ba. moom tamit ko baax. ah Matar Ba c'est mu ngoog merci mon frère. Sader ñu ngi koy eh, ñu ngi koy nuyu tonton Mag eh, gisuma anniversaire bu mu jubite maa ngi bëgg a tàggoo. Eh, dafa juum. Ablaye Diop Ablaye Diop Paris euh, euh, joyeux euh, anniversaire mais nag yow yow maxu buggoo buggoo Mass Ndiaye de Mass yónnee na ay anniversaire bëggoon mu jàll mais vraiment yaa ngi bloqué Mass te pourtant vraiment maas maas yónnee nañu yónnee nañu ba yónnee ñu VIP laay mi bisu dugal léegi yow anniversaire yi par 15 nga ciy jo jo jo jotondo joto jopo coco coro coco. Mami Mbaye Talibé Talibé Serigne Babacar Sy euh, c'est de la part de euh, c'est de la part de Mass Ndiaye euh, Kangejoum. Kangejoum moom lan lañ koy jox ci affaire co coiffure yi moom mooy ban. xaaral ba mu defar ñu ba pare ambulance la wala. ñu ba pare xamaguñu. Ah, ko dara. kon yéen ay dof ngeen. waaw bàyyi ba mu def Amérique. bàyyi ba mu defar ñu ba pare déedéet. boo xamante ni télé Amérique yi sax duñu ko dara Amérique nga wax fii Sénégal la. bon eh, eh, Kange euh, kon Kange il faut mu def ay preuve am ana tata Amia. ah non yemuñu buuba buuba naanaan ba. eh bàyyil buuba yow génn gis nga buuba ah, suñu papa la de yow. góor boo bëggee gis suñu eh. yaramu neen yeggali ci buuba. maam buy tax buuba lan la buuba sama xarit nga ah maa <laughs> ah, léegi moom mi comprendre moom buba nee na man crise cardiaque la dafa foog ne ay feebar la ñuy wax alors que niveau de <laughs> niveau de régler problème bu maladie la ñu toll voilà des gens comme Youssou Ndour Cheikh Bakodou Fall Amadou Ba Elimane Lam ah, ñooñu ay sowetaas la ah, <laughs> waaw léegi defe naa mën nañoo jeexal de doyul doy na de xanaa merci Mame Gor on est content on vous souhaite une bonne journée merci à toute l'équipe de production production euh, dirigée par tonton mag gërëm bu baax euh, mas Ndiaye euh, Marème Diallo petit bu EFAT euh, fàttewuñu père Assane Ndong ñoom promotion gërëm tamit Yacine ak El Hadj Babacar Bey ak gars yi nekk ci kaw yëpp toog mu seriñ Fallou moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax ñoom Mansour ñoom Lamine Baro gars yi ci jàpp demain on sera à partir de huit heures télévision Futur Média bonne journée. Joyeux anniversaire, happy birthday. Turn up, turn up, summer day on the bus. Kuma juhu deru sama gajah nujuri. Bandar, know the best Linguev bugün yakunu Baby free enjoy your day Ulalalia wakbako Turn up, turn up, samba day I'm the best Kuma juhu dada samba gadu nojali Panel, panel, feel polite cause